Tabas ke rendi bu rendi ku nekk daas baagam pour mën a rendi ay pexek teg di bu feet di lu ñu la wax suba dinañ ko weddi jigéen ñi bëgg ay chèque yu cher ñu ñu ko sekkal da yor ñu xeer bàyyi gën a dëgg fit ñi liggéey di fay eh. ku weer ku nekk ak pexem ñi doñu doyuwaay loolu ñu bu ma noppi di la dégg xaar ta sa yaakaar sa di la di samba allah eh, tabaski ren bi doy na ka ku nekk pexeem tabaski ren bi doy na ka ku nekk pexeem tabaski ren bi doy na ka ku nekk pexeem bi doy na ka tabaski ren bi doy na gaaw mu nekk pexe aw ma lenn lu may wax heure bi jot na 10 heures jot na poli eh yéen laay waxal de yéen laay waxal dama ne 10 jot na nañ leen def poli. yow yow kay ñoo combat kaar ñu police. a ah, amul xaar ma police. ñëw leen ñu dem ñëw leen ñu dem rek jeex yéen laay xaar de. waaye Mor allo. yéen laay xaar allo. kookal. Segita. waaw waaw. waaw. moo ngi foofu toog. waaw. ñoo ñaw lee. léegi deux secondes ngir yàlla xaar ñu foofu deux secondes ñu ñëw deux secondes ñu ñëw waaw d'accord. Nikita Nikita déedéet xale bu jigéen bi nee na. xale bu jigéen bu ñëwoon secrétaire. nee na gis na waa ji. nee na ñu ñëw ñu fekk ko foofu. kan ñu dem la nee na waa ji sàcc sama kaal segale bi ki ma jox segale bi. nañ dem nañ dem eh Baye Mor. nañ dem Baye Mor. taxi taxi. Oh! Tasayakan Sosok Nabi Muhammad sama Allah eh. Tabas kirang bidoy naka Unay ka pechen Tabas kirang bidoy naka Unay tak pechen Tabas kirang bidoy naka Unay ka pechen Tabas kirang bidoy naka

nee na fii lay nekk pays bu fii man xamal lu ma leen bëgg a xamal ngeen wax ma fi booy bi ne baa nu dem kuli place nga jàmb la ndox xale ne waaw place nga jàmbaa ngi ni wax léegi la fi ma place nga jàmb waaw defal nanka lu ñuy def naa kaara dañuy dugg léegi si biir place bii kooku jarul sax wax waaw bisimilah am na loo xamante ne ni jarul wax yow asbulallahi wa ni'mal wakiil entourage <laughs> kii la entourage way ah, c'est le maire Dai, Dai. Cai, cai, cai, cai, cai, cai! Vem, vem, vem, vem, vem. Cai, cai. Não, não, não, não, não, não. Tem, Teco, Teco. Bobo, you are Yorga, Bobo. O jogador Bobo, Teco. Cai, olha lá. jafal eh xoolal mo damay ndank rek eh tey ñappal sama xol da leen da leen nak ni xoolal boo ma waxee affaire daal dama lay corté bay boobu defal nak dama ma tam baat bi bul rey sama xaalis la yor man bàyyi eh, booba bàyyi ko. booba bàyyi jàkkaarloo si yow. booba dañ koy takk ba mu jege. day daw day daw. teel ma ma ma takka dama koy takk. moo woo Sakor Konkiyaar léegi ñu yóbbu. sanga ko ba mu set booy day def triya. booy ñu takk ba pare ngay. xaaral ma expliqué la day day booy takkal booba takkal. daanal leen leen ma ko par takkal. takkal ñu eh. defal naa ma ne tànn leen par carte. man xaar ma expliqué leen. yow expliqué yow ngeen li ngeen def nii lu grave ngeen. waaw ah, yow yaa njëkk a def lu grave. en train de m'agresser la. m'agresser la voilà yéen adjoint au maire ngeen di agressé. mais yow voilà. ah. Oh, sànnal leen ma par carte kii. déedéet ñu dem. fu ñu jëm nañ de police. la njëkk sa dem. ala ala kii balaa ñu ko yóbbu kii balaa ñu ko yóbbu police den koy tap den koy tap. da ngay jaay bandi. Babas kirain liburan Di kumaku das patah kebumeran Ay pengen kita nyawan Dede dañ ko yóbbu kenn du ko takk ak sàcc kenn du ko dugal takk eh bay nay dox sàcce kaw sàcce nay dox ñawal ñawal nay dox da ngay jaay bande rek doomeeram doxal doxal eh xoolal xoolal ay ay ca ku jël ay ca ku jël bi sàcc la sàccooy sàccooy yu xoolee ko sàcc yu xoolee yu xoolee ko sàcc seen cabinet médical traditionnel Serigne Medounsey Sey borom tawféex di fajkat cosaan booy jëfandikoo gàncax ngeen mën koo fekk ca Dakar Touba Kaolack Thiès wala saxi Ndar ngeen jot ci 78 585 34 34 78 585 34 34 moo leen doon may seen sketch. ma noppi di la di xaar ta yaakaar sa di la xaar gi samba àllar eh, tabaski bi doy na kaar bi doy na kaar bi doy na kaar bi doy na بسكيرة بدون تام ونك بخير لا بسكيرة بدون تام ونك بخير Da baskerendi burendi das pakan pour mën di bu feddi lu ñu la wax suba dinañ ko weddi jigéen ñi bëgg ay chèque yu cher ñu ñu ko sëkkal da yor ñu xeer bàyyi gën di ku bu nekk ak pexeem ñi dañu doy waar yoruñu bu ma noppi di la di xaar ta sa yaakaar sa soxna di la xam di samba allah eh. tabaski ren bi doy na ka bu nekk ak pexeem tabaski ren bi doy na ka bu nekk ak pexeem tabaski ren bi doy na ka bu nekk ak pexeem bi doy na ka skidden be doing the car. Need on your door you are. You're a new woman, no be the so di lakar di samba Allah. Tabas kidden be doing the car. Unek a pechen, tabas kidden be doing car. Unek a pechen, tabas kidden be doing car. a tabas doing Tabaskiren bi doy na kaw mu nekk pexe tabaskiren bi doy na kaw mu nekk pexe tabaskiren bi doy na kaw mu nekk pexe. basket and we doing the car. Who make a kaw mu nekk pexe tabaski ren bi doy na kaw mu nekk pexe tabaski ren bi doy na kaw mu nekk pexe